السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله سلام ربنا دائما نعم بصحبه waaw euh, pour tontu bu gàtt rek ndax bu dee sëñ borom daara ji dañ leen naree wax léppam xaju mais pour tontu bu gàtt rek ba nga xam ne nii di ngeen mën a xam lu waral borom daara ji mooy ana dafa nekkoon koo xam ne nii daraan jàngale fànn yëpp fànn yi nit xam ci jàngale ci wàllu aat arab sëñ Mass Borom daa daan na ko jàngal dana na jàngale fiq daan na jàngale nax daan na baxa risaala balaax daan na ko jàngale teg yi it ñi nga xam ne dañu lëntale ci seen wàllu daara dañ daan ñëw ci moom mu leen daan dimbali ci seen daara ñu dem nag ba dajaloo ki nga xam ne nii mooy baayam tuddee ko sëriñ Mansour si borom daara ji ngir daara ji moo ko yoroon ndax nekk xale rek bi muy xale la commencé matale daara ji te màggagul yàlla cërale ko looloo tax buñ nee Serigne Mansour rek liñ ciy njëkk a toftale mooy borom daara ji ndax daal nañ toll ay jamono buñ nee alxalif sëñ Babacar lañ daan wax waaw moom it bi muy dund bu nee borom daara ji kenn sañul waxaat keneen sëñ Mansour borom daara ji rek ngay nangoo parce que xam nga ni moom rek moo matale charte yi ñuy waxee ci borom daara ji ndax gis ngeen bu daan firi xala xilaas daan na ko firi tojee ko noo xam ne yow doo ko déggee noonu bu daan firi jawratu kamal bu ko tojee na nga koy déggee déggin gi moo lay yéem ci yeneen firi yi loolu rek ci gàttal moo taxoon ñu tuddee ko borom daara daara mooy ku yor daara ça veut dire que kon ci ngay nangoo ni sëñ daan na jàngale ndax dafa jàngal ñuy jàngale dafa jàngal ñoo xam ne fii may wax ak yow nii ñoo jàngal ñi fi raw waaw looloo tax ñu tuddee ko borom daara waaw moom ñaar la daan taxawal ci àdduna moy bëgg sharia dox ba pare manam diine ji dox ndax léppam yonent bi ndax da ko jëlee ci bayam walay sa lii amalum alxaaka amali si wal ma xabbati kon bayam mamam lool la gëmoon balaa nit di def dara yow yàlla ba pare yeneen ci bi doga ñëw waye mu amaat benen taxaway nak bo xam ni buñ ne ma fil kawni si war rahman والمصطفى وشيخ سيدي احمد التياني كون مانام يالا بو دوغي رك يننتي بي دوغو سيدي احمد التياني ستوب وانا مو نتا ريخا سيدي احمد التياني بوب اون فا اسيي نو بروموفوار مو ديم سي كانام بروموفوار بي مو ناك مو جور لي ييب موم سي لول رون دوخ لو دوخال تاريخا بي لو دوخال دين جي وايي ناك الناس بروم دا دا وا شريعه فكي نان باتاي سخنا مونو كو تير سا لوخ في fii lañ fekk muy wax jigéen di wax mu ne ko noppil bul wax jigéen du wax kon daawul wàcc sere moom daal boo bëggaan xam baaxam gi rëy mooy da ngay jàng mu jàngal da nga bëgg a xam mu xamal la da bëgg a xam ci tarixa bi mu xamal la fexe nag yar ñoo xam ne nii moom ginnaam dinañ defar ba mu raxat mooy la sëriñ ba waxoon ne que sëñ Mansour borom daara ji defar nga sax ginnaaw ba nga xam nii moo gën a jekk sax bi nga fi nekkee ndax nit dem na kilifa gaañul ginnaam yàqu sëñ Manche borom daara ji ginnaam dafa dàq kanamam xam nga dañ daan wax baayam danga mën a ginnaaw mën sa ginnaaw mën sa kanam sëñ Manche borom daara yàlla da ko nattoon loolu moom it woon kanamam ndax defar ay mag waaye mën a teral doomi aadama daan nañ ko dégg borom limousine borom sañce bi borom xar baax yi borom borom borom borom borom borom ba teg si nag loo teg ma dem ku sañ loolu mooy ki dégg fànn yëpp. nit mën nga jang mais lo tek ma dem day fekk lañuy tek nga xam ko yalla dekk dimbali won ba pare mu bëgg mbokk ci loolu la ron dox day xaw di nax sëñ ma borom daal yalla fa dogal avant mi gennat juste dernière année yi dernière bourdeum ak dernière gamum dafa dafa def lu ñu jaaxal ci ziar bi daf ñu fekk manko euh, muy sebi xotan mu ñew ni dafa bëgg ñëpp gis ko nit yàlla day toll foofu ñu wax mu ne day wàcc oto bi ñu wax wax wax mu ne day wàcc oto bi sëñ Mass Jamil ñëw ne ka papa fii munoo fee wàcc mu indil ko limousine bi mu yéeg nit ñi di ko gis waaye bi mu ñëwee ba fii ba Tivaouane bi ñu ko indee ba mu ñëw dafa ñëw génn rek taxaw te boobu ñi nga daan jàppoo sonn na mais boobu dafa fippu taxaw ne action yéen ñëpp toog leen suuf ñëpp toog mu ne na ma nit ñi gis. ci yàlla day toll foofu ginnaaw gi mu ko demee ñëwaat gàmmu giit mu def la même chose ci la wax dénkaani yéeme ci dundam sëñ Mansour xamaloon na nit ñi kañ lay faatu xamaloon ni bu faatoo diw dina ma topp yàlla mayan na ko lool maanaam dernier mujj dundam li ñu marqué ci àdduna loolu la ñu marqué fii bu fi daan taxaw di génn ba zikkar gi jug laa ilaha illa allah laa ilaha mu naan yuuxu ñu pare mu yëngal boppam nañu ñaanal leen bu dee ba xalifa Seydi Ahmed Tidiane ne yéen ñaanal leen ma tolluwaayam ëpp mais dafa am lu mu doon jàngal muy yéen samay samay ndono moo waral lii nga fi gis moo waral action daara ji moo waral lii lépp sak la woon maanaam bu ñuy wax ci moom bu mujj maanaam sañu li ñu xam ci moom bu ñu ko waxee du neex daal te yàlla daf ñu bugguñu di wax ak kenn suñu rongee di génn mais borom daara ji moom bu ñuy wax ak moom du ba foo côté boobu moom fi nga laal moom bu ñu fa waxee rek day merci moom. salaamu alayka ya rasulallah